waaw loom de la clarté sombre bind la boo xamante ni euh, boo ko bëggee tekki sax daanaka day xaw a jafe ndaxte booy wax ci lëndëm nga jël di ko booleeg leer loolu je pense que euh, contraire boobu dina jaaxal ñu bëri. kon loolu moo lay wan livre bi li muy wut au fait mooy boole jikko yi lu muy wut mooy ci njàngum xale jigéen dañ cee war a lu vraiment. Euh, lu muy xool aussi si wàllu xale yi tout ça di wax si jàngub xale yi di wax aussi si jàngalekat yi jàngalekat yi jàngalekat yi jàmbaar yi yoo xamante ne euh, li ñuy def vraiment kenn mënu leen fay. day wax aussi ci lu jëm ci ci nguur gi ni ñuy doxalee ñun africain nu ñuy jëlee lépp loo xamante ne dañ koy gis France baax na comme baaxul di ko jëlaat indiwaat ko suñu si suñu njàngale système éducatif bi loolu tamit da siy wax toujours war nañ ko xoolaat aussi écrivain lu muy bind ci mooy. Euh, c'est sa sensibilité c'est son émotion loolu yëpp lay jël def ko ci livre bi donc booy bind yow xam amoo objectif da ngay bind rek en attendant bàyyi leen yéen ñiy lire ngeen war ma wax loo leen ci xalaat.